jërëjëf monsieur le président ñu ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre ak délégation bi mu àndal di nuyu sunu mbokki député yi di rafetlu taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci pegg président de la république ak ci pegg askan bi monsieur le ministre maa ngi fàttaliku ne heure bii daaw toog naa fii taxaw naa fii wax ne réew mi ñaari nit rekk la ñor pour bu mu tàkk ñi ci coow yépp réew mi tàkk ñor na leen ñaari ñooñu kan la ma ne xalifa généraux yi ak président de la république taal gi ñu taal réew mi fan yi feeñ na ci wane ne la mu waxoon lu am la tey jii bu ñu nekkee ci réew mi ay nit mën a taxaw jàkkaarloog nit woote xeex nit koo xam ne yow mii woote xeex dangaa taxaw ne sëtub sëriñ tubaa nga yow yow mi koy wax da nga taxaw ne sëtu sëñ tubaa war nga xam nga sëtu sëñ tubaa sax man moom du ma du ko ñi koy waxee doonuñu ko soxna assumé moo ko fi doon jege sëñ tubaa laa nag waaye du ma sëtam soxna assumé moo ko fi doon fii moom rek moo fi nekk sëtub sëriñ tubaa coow li li muy bari bari bari bari bari bu ñu kenn rey ci yooyu il faut ñu arrêté ko il faut ñu arrêté ko na Astou sëñ tubaa moo jur baayam kon kooku sëtub Serigne Touba booy woote sëtub Serigne Touba Serigne Touba ne naaxil kawaahiba wal xawaanee wal tasal jigéen góor na moytu jigéen nit dem ci benn place bësante ba dara fekk ko fa war nga am kersa di wax ne sëtub Serigne Touba nga di jàppale kooku sëtub sëriñ Touba dafa war a am nu mu mel soo dikkee ci milieu yu mel nii nañuy moytu. sëñ Tuubaa nañ ko jël bàyyi ko fee ci dëkkam bee mu toog nit la koo xam ne ay taal ñoru ko xeex ñoru ko monsieur li xew fii bu fekkoon ne meloon ngeen ni ñoom réew mi dana deme neneen de ndax lu tax ma gëm ko mooy alkaati yi gendarmerie police ñiñ doon jàkkaarlool xam nañ ne day yaakaar nañ ne ñii ay sénégalais lañ mais est-ce que ñi woon ci biir ñooñu ay sénégalais lañ loolu la nit ñi bëgg a xam parce jàpp nañ ne ñi doon gisuñu fenn foo xam ne jàmmaarloo dafa am militaire police ak gendarme ay nit faatu ci ay ruq-ruqaan lañ doon faatu lu leen rey loolu la askan yu bëgg a xam monsieur le ministre nit ñi dañoo bëgg a xam ñi newoon ci biir manifestation yi ñan la parce que gëm nañ ne du ay sénégalais gëm nañ ne du ay sénégalais nañu arrêté ay ay ay joola séeréer pël loolu amul sénégalais yi gëmuñu loolu sénégalais yi loolu nekkul sax ci seeni xel gëm nañ ne li xew fii taal alali jàmbur ma ba manipuler munta passé sëñ Muntaxa nee na ñu ngi sant sëriñ mun Muntaxa sëñ Muntaxa waxul fenn ne te du ko wax te fii ma taxaw maa leen wax du ko wax lu tax nit koo xam ne liggéey na ñaar fukki at wala ñeent fukki at alalam ñu xëy suba lakk ko ci ay caaxaan sëñ mun taxaa du wax ne ki ko lakk nañ ko bàyyi du ko wax ki ko lakk nañ ko bàyyi sëñ Muntaxa taxaw di xeexal lislaam mu jaral ko lu ne sëriñ Tuubaa xeexal fii lislaam ba génn dem fu ne ci àddina dellu siwaat ci réew mi ci xeex lislaam ne jigéen ak góor seenu jege xal la ak mboot nañ koy moytu nit dem fële bësante ba def leneen ay taal am ca maasante ba taal réew mi taal ay place yi jàmboor sëñ Muntaxa wax ñooñ nañ ko bàyyi loolu mun ta nekk waxu ko li mu wax mooy bu amee lu ci doon politique nañ ko dindi li mu wax mooy nañu rafetal te ànd nekk benn mais du lii ngeen di wax mani li ngeen di manipuler nit ñi bàyyi leen ko élection yi ñu nekk du waxuma ci ay élection intéressé wu ma parce que la tax mooy li samay contenu wax doy na li ma wax mooy réew mi ñu nekk réewu droit la li ngeen di wax ci biir bokkut li ngeen di wax ci bitti arrêté leen seen yii ngeen di def arrêté leen seen yi ngeen di def su ngeen nekkee ci biir mais tey man an ñaata ministre fii ci réew mi ñoo ma recevoir man ma laaj leen ay marché amul mais fii ngeen di nekk di saaga ministre yi di wax lu leen neex bu ngeen noppee bu ngoonee ngeen dem négocier ji bu ngeen waxee ngeen naan am ngeen xaalis fu ngeen jëlee xaalis mais nit day day am fayda ne fii laa damaa weex wala damaa ñuul mais weex ci suba gi suppu kànj bala maa dee ñu naan coalition Benno Bokk Yaakaar coalition suppu kànj bi nag couleur yëpp a ngi ci li ngeen di wax du dëgg. réew mi Macky Sall la ñu wóolu nii ngeen ko defee woon 2019 coow ngeen fi jàppale si lu ne wax ngeen ko mais bi élection yi dikkee président Macky Sall lañ Sénégalais jox kàddu dem leen ngeen toog wóoluwuñ leen